fait d' abord euh, Mamadou damay incliné wu si mémoire ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan. Mm-hmm. parce que lu metti la xam nga tey neexul nga famille wu lëmm desandoo si biir géej gi. je pense que loolu bu ñu koy wax que muy état muy opposition ñun ñëpp dañoo war a xam ne les responsabilités sont partagées. Mm-hmm. parce que li ma gëm mooy problème immigration nekkul lu bees ñun ñëpp ñu ngi rappelé wu 2006 2007. bi ñuy wax Barça ak Barsaq. je pense que ñun jàppoon nañ ne du ñu demaat ba deux mille vingt trois ce même problème di posé waat Sénégal mais loolu bu ñu ko waxee mooy li ma wax sànq les responsabilités sont partagées et dañ jël lépp def ko ci jeunesse bi ma jàpp ne du jeunesse bi kese parce que ñi ñuy gis ñuy dugg ci gaal yi du ay jeunes kese am na si ay maire am na si ay ñoo xam ne ay chef de famille lañ kon ñooñu je pense que bu ñu jëlee seen responsabilité fay quatre cent mille wala cinq cent mille pour dem Espagne dëkk boo xam ne peut-être xamoo fa wala xamoo fa kenn jàpp naa ne loolu bu ñu bëggee jël lépp teg ko ci ndoddu état jàpp naa ne loolu lu ñu war a xoolal la parce que tey kii jël cinq cent mille wala quatre cent mille di ko fayee gaal bu toogee fii jënd def entrepreneuriat dina dina si dina si génn mhm. dina ma permettre ma waxaale par rapport ak yi nga xam ne jaase euh, cité na ko sànq parce que tey état du Sénégal bi ñu ko dénkee président Macky Sall en 2012 ak léegi ñun ñëpp ku ci nekk xam na ne jeunesse bi priorité la ci moom bu ma nee jeunesse bi priorité la mooy teg na mécanisme yoo xam ne mën na permettre na jeunesse bi ñii am formation jaare ci am liggéey wala boo bëggul liggéeyal état soit fonctionnaire wala nga nekk si dans le parapublic. Mhm. nga créer loo xam ne sa entreprise personnelle la je pense que bu ñu tegee 3FPT formé jeune la formé man témoin laa ci parce que xam naa ko fa nekkoon am na nit yoo xam ne dimbali naa leen ci tey ñu jàng ci réussir tey dañ lay message ne la jërëjëf tey yàlla dogal na ñu am non ñoo xam ne xamuma leen yàlla xam na ne bari na non non non foofu laay ñëw foofu laay ñëw xam nga tey Mamadou Awa man tey euh, je suis avec le président Macky mhm. mais tey balaa may intégrer fonction publique dama créer sama cabinet boo xam ne du du état du du APR du kenn mais dama gëm ne tey waruma nekk rek di xaar état defran ma mhm. parce boobu on était à étudiant Thiès waay yow comme Thiès nga dëkk. Mhm. bëri ci ñoo xam dañ doon cartouché amuñu moyen jàng. Mhm. comme ñun lañ doon ñëw di sonal parce ñoo yore woon bi dañ doon dem si école privée di xool nañ leen mën a accompagner mhm. mais à loolu ñu dem ba créer ci suñu cabinet di ci accompagner étudiants yi. bari tey ay hommes politiques yoo xam ne ay ministres de la république ak ay directeurs seen militants yi dañ leen ci doon jàppale pour ñu former initiative boobu xaaruma présent Macky Sall jox ma moyen pour ma def ko xaaruma Diallo jox ma moyen pour ma def ko mais dama jàpp ne dama nekk jeune nekk sénégalais am xel xalaat teg dara pour accompagner la jeunes pour jàppale ay ndaw yoo xam ne war nañ leen former war nañ am ëllëg liggéey pour liggéeyal Sénégal je pense que jeunes yi yëpp bu ñu defoon noonu tey problème bii duñu ko am man gëm man dem naa bi ma jógee France yàggul mais dama gisul lan moo war a jaral sénégalais yi wala ndaw yi di jël gaal gi di dem foofu man gisuma ko très kon tey état effort yi muy def ci ci ci ay. mais leen koy jaral offre euh, de formation effort yi muy def. bokk na ci pour euh, ndaw yi am liggéey. je pense on gagne moins qu'on doit consommer. non non xam nga en réalité xam nga je je vous dis soo yaakaar naa jàlloo la tey par rapport ak les dépenses au quotidien dafa dafa doon loo xam ne lu métti la alors que quelqu'un gagne. non xam nga xam nga nit bu nekk ci àdduna da ngay dund solon tes moyens. gis nga tey ki am milliard bu ko dund bu ko neexee mu dund dund milliardaire man mi nga xam ne peut-être damay gagner benn salaire bu moyen ma dund selon mes moyens. mais mais mais mais si parce que xam nga lu tax nañu waxante nañu waxante dëgg rek te yàlla tax tey la plupart de ces yi ngay gis koo ci gis mu ngi ak iPhone 15 wala mu ngi ak iPhone 14 wala iPhone 13 boo ko jaayee tey di nga si am 1 million mais 1 million boobu wala 800000 boobu nga jël nga yore ko di sinab wala defi affaire mais boo ci euh, boo mën nga si def entrepreneuriat ñaata nit ngay dégg Sénégal ñu nekk ay milliardaires ñu ne. soixante mille lañ commencé cent mille lañ commencé tey ñu ngi ñu ngi employé ay milliers et milliers de personnes. Mhm. li ma gëm mooy ñun ñun ndaw ñi il faut que ñu gëm suñu bopp. xam ne tey réew mi man gëmuma nit di bàyyi réew moo xam ne am na pétrole ak gaz di dem foo xam ne ab sedd moo fa am lan nga fay wut. Sénégal dañu war a exploiter pétrole ak gaz bi tey yàlla dimbal nañu am na njiitu réew boo xam ne. tee na réew mi malgré li nga xam ne am na ci àdduna bi ci problème de sécurité nga xam ne wax na ko sànq mu ngi indi ay Euh, mois de mars bi ne non ndaw ñi dañu soulever parce que amuñu liggéey non y avait des personnes yu bëggoon déstabiliser Sénégal jaaree ci ndaw yi mais heureusement ba le président Macky ak taxawaayam ak bëgg ak ak ak taxawaayam non du loolu kese non du waaw mais ça évolue en temps non non man man ma gëm laay wax xam nga man man li ma gëm laay wax man dama gëm ne dafa am ñoo xam ne euh, dañu bëggoon déstabiliser Sénégal jaare ci ndaw ñi heureusement que l'État est fort heureusement que président téye na ko en main ba tey yàlla mu ngi ñu suturaal ñu ngi toog fii di def euh, émission jeexagul parce que ñu ngi continuer mais état moom aussi mu ngi taxaw pour surveiller xool nañ la ñuy jàppale askan pour ñu génn ci pour revenir un peu ci affaire jeunesse bi dama gëm ne ndaw ak ku mënti doon nit da ngay gëm sa bopp ak foo mënti dëkk ah parce que tey président Macky moo jiite réew mi fan la dëkk Fatick mais dafa gëm boppam jàng ba tey ëllëg mu jiite réew mi pour pourquoi ñu gëm ne dañu war a dem Europe pour tekki pour quoi ñu gëm ne dañu war a jël 4 millions def ko ci billet Nicaragua pour dem États-Unis ñu lay jàpp di la refoulé mais 4 millions boo ko jëlee investir Sénégal di nga ci génn nañu dem si àll bi bay mais tey boo jëlee 4 millions 5 millions nga investir ko si piment wala nga dem bayi papaay mais bu boo defee récolte di nga am bénéfice 3 wala 4 millions je pense que loolu boo ko defee deux ans trois ans di nga employé ñeneen mais bu ñu jëlee lépp rek xëpp ko ci état mais bu boobaa dañuy man jàpp naa ne du lu war opposition bi muy pouvoir li ñu war a def mooy sensibiliser jeunesse bi ne leen dem si gaal yi du solution solution bi mooy nañu toog ci réew mi parce que yàlla suturaal nañu réew mu ndaw lañ am nañ ay possibilités am nañ ay ressources yoo xam ne tey bu ñu booloowee liggéey réew mi je pense que nit ñi ñooy daw ñëw mais ñun du ñu daw ñëw parce que li ñu jàppee ne fële mooy Eldorado bu ñu liggéeyee Sénégal d'ici cinq ans dix ans mooy nekk Eldorado bi te nit ñi dinañ revenir pour euh, loolu pour terminer ci rek dañuy féliciter waa encore le président Macky par rapport ak mécanisme yi ñu teg parce que quatre cent cinquante milliards lay investir ci jeunesse bi pendant trois ans loolu aussi li ma ciy wax mooy le ministère de la jeunesse boo koy lancer appel parce que tamit boo jiitee yi il faut nga waxtaan ak ñoom ak na organiser ay ay ay rencontre avec la jeunesse na dem si département yi na dem si région yi na dem si commune yi jàkkaarloo ak ndaw yi waxtaan ak ñoom sensibiliser leen ne leen lii du solution solu à travers aussi ak le conseil national de la jeunesse ñu àndandoo liggéey loolu malgré tous vos efforts malgré le Sénégal émergent bi ngeen ñuy vendre euh, nee na situation sénégalais yi amélioré wul benn situation sénégalais amélioré na. c'est vrai que tout n'est pas rose il y a yoo xam ne dinañ dinañ ci gën a góorgóorlu parce que état bi def nay effort même mhm. boo farul ak état yow boo demee sa kër toog di nga xam ne le présent Macky Sall a des efforts. Mhm. si de secteur bu mu mënti doon. phénomène mondial lañ nekk pauvreté bi c'est c'est partout dans le monde ak crise bi ñu jógee. Covid 19 la ñu jógee mais malgré tout l' état a tenu ñu jógee ci crise 19 yaa guerru Ukraine bi ak kii ñëwaat déclancer wu problème yooyu yëpp am. Mhm. mais malgré tout ces problèmes le président Macky Sall. tenir na réew mi jàpp na réew mi et puis nañu àndandoo Sénégal bu problème amee ñu def comme France gis nga jafe-jafe ba mu fa amee Marine Le dafa jug malgré il est elle est opposante mais dafa jug ne nañu. booloo xeex mbir mi mais Sénégal problème day am. opposition bi dañ siy profité di attaquer euh, état. mais Maodo Maodo benn parenthèse li euh, a eu euh, la la Covid 19 Sénégal yi dañoo mais tout le mais ñëpp dañ ko sollicité mais ñëpp dañu félicité taxaw tàccu. irrégularité yi ci am Mamadou Awa irrégularité yi ci am nga xam ne Cour des comptes wax na ko. Mhm. man dama gëm ne ña nga xam ne dañ leen siy tudd ne la ñu liggéey jaaduwul état ne leen topp ils doivent répondre mhm. parce que tamit suñu xaalis la suñu cotisation la ñun ñëpp ñu dénk ko ay nit mhm. pour ñu amal une minorité du ko jël non ñooñu dañ leen état di leen topp et je pense que ah. président wax na ko état dina ci jël